je que Adama est en train de faire li ñuy tuddee mélange des genres Sonko ak ay booyam yi muy wax ni dañ ko barricadé woon këram ñooñu ay privé lañ ñii nii police la c'est la police nationale c'est la gendarmerie nationale c'est deux choses totalement différentes c'est-à-dire que mënuñoo fonctionner de la même manière Sonko am na droit ni kenn dugg sama kër gendarmerie nationale amul droit ni euh, journalistes yi bu ñu def seen liggéey parce que nekkuñu ci état de siège xam nga à tordre les loi pour man autant y aller ba mu jeex xam nga sooy tordre demal ba mu sës ñu xam ni yow da ngaa da ngaa yeewu pour tordre les lois ba mu jeex pour moi aujourd'hui li ñu bëgg a def journalistes yi c'est très simple Mhm. ils ont leur agenda à kër góor gi agenda boobu noonu il faut faire de telle sorte que kenn bañ ko relayer mhm. kenn bañ ko wane waa ji bu ñu ko jëlee fan lañ koy yóbbu nuñ ko fay yóbboo pour moi ils sont toujours dans dans dans dans cet agenda